mbokk internet Tactic TV tey nag dañoo ñëwoon pour jox leen benn xibaar boo xamee ne xibaar bu naqari la xibaar bu doy waar muy génn àdduna Samba waa Pikine yépp ñoo xamoon Samba parce que moo doon président ASC Cosaan bu Pikine en même temps président centre de santé Dominique circonstance bi mu génnee àdduna nag moom moo doy waar parce que Samba information yi jot fa amoon benn réunion boo xamee ne partisan Augustin Senghor yi ñoo war a am fédération sénégalaise de football le 7 août bii di ñëw demoon fa pour assister si réunion bi bu demee ci buntu bi nag moom ak yeneen président club ñu bañ leen ne doo leen dugg ay xëccoo xëccoo yooyu nag ci la daanu mu décédé si saa see par crise waaw waaye nag avant loolu di am Samba Sarr am na lu mu waxoon ñu leen koy déglu. On est venu, nous avons trouvé euh, des mesures de sécurité pour nous empêcher d'entrer dans notre propre stade, dans notre propre Parce que simplement, nous avons une déclaration à faire devant Augustin Senghor et devant tous les acteurs du football de Pékin. Ouais, c'est pour ça que les gens ont mis en place un comité d'accueil pour, pour nous empêcher d'entrer dans le complexe. Alors que Augustin est censé venir voir les clubs de Pékin. dañoo ñëw au niveau du complexe Léopold euh, on a constaté que on nous a refusé l'accès ñun ñi nga xam ne ñun ñooy les président de club léegi ñi nekk ci biir salle bi mooy ce sont les membre de l'ODECAV ñoom ñoo nekk ci biir salle bi ils ont maquillé le truc pour faire croire à Augustin que ce sont les clubs qui l'accueillent non mais club yi accueilliruñ ko waa ODECAV ñoo ko accueillir meublé salle bi les président de club ñu refuser leen l'accès parce que jàpp nañ ni ñun dañoo contre Augustin wala li ñuy wax foofu du leen arranger loolu moo tax ñu refuser salle bi euh, l'accès à au président de l'ASC Cosaan sambasar au président de l'académie de football de Pékin, au président de l'AS Malika, au président de l'Espérance Kermassar, au président de, de UF Yumble à d'autres présidents qui son contre cette dynamique la Donc, il pensent que bu duggee nous, bi li sommes wax nous leen enrager. Ni la Fademé, constat bi moo ngi nii mooy c'est le candidat Augustin Senghor mu xam ni ñi ko accueillir du du du du du lu les club de Pikine mais ñi ko accueillir ce sont des gens de l'ODECAV qui se sont organisés en, en bande pour accueillir le président Augustin Senghor waaw noonu la fa demee. Samba Amadou Sarr vraiment un vrai Pikinois tey daanu na waaw l'ami de tous waaw l'ami de tous nag vraiment waaw mun na wax ak te tamit yàlla may na ko mun na wax ak génération bu ne oh c'est yi metti na trop si Pikine metti na metti na lool nag mais yàlla nag su soxlee moom noonu la rek. waaw ah, mais c' est très dure tey moom Pikine ñàkk na doomam waaw doomam boo xam ne fierté la woon si pikin waaw fierté waaw vraiment dundam du dund pertement parce que dund na ko au service exclusif de Pikine et des Pikinois waaw lépp luy combat Pikine gis nga si Samba Sarr waaw doomu Pikine dëgg dëgg dëgg tey dëddu na waaw doomu Pikine dëgg dëgg dëddu na waaw Samba Sarr amul morom Samba Sarr ah Samba Sarr yàlla yërëm yàlla na yàlla yërëm. ku baax dem na ku baax baax. pare nag waa membre ODCAV yi ñoom ñoo nekkoon ci biir salle yu dell bëgg gëmloo Augustin Senghor ne club yi ñoom ñoo fa nekk. soir boobu nag ñoom loolu lañ doon bañ ñoom président club yi moo tax ñoom ñu demoon pour assister réunion boobu gars ne ko dóor pëccoo yi ci la amee jàppante bàyyante ba mu daanu foofu eh, affaire bi yemul foofu que corps bi ñu xam circonstance exacte nan la Samba Sarr président ASC Cosaan en même temps président centre Dominique de Pikine gaañoo waaw bokk loolu lañ amoon tey di lañ ko wax ñoo ngi topp affaire bi nag information fu mu toll rek Tactic TV dina ñëw jox leen ci encore ay détails jërë ngeen jëf dañuy dugg dañuy dugg kenn ñu bëri dañuy dugg kenn ñu bëri dañuy bàcc baax na bàcc bàcc c'est bon bàcc c'est bon